wa baadu assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi topp seen site MTV Sénégal ñoo ngi leen di nuyu nuyub islaam bi ñu yàlla boole muy nuyoo bi gën a tedd gën a sell gën a sakkan dooy wëlif bépp nuyoo te benn nuyoo mënta doy wëlif ko mu làmboo jàmm yàlla ak yërmandeem ak barkeem ñu koy ñaan man borom bi yàlla na koy sëmbatal suñu kaw ilaa yemil xiyaama di fa yéene del siwaat ak yéen ci liggéey bi nga xam ne baaxoo nañ di ko ànd ak yéen mooy doon jéem a toppante ak yéen téere bi ñu tuddee al axdariyu fi l ibadat ala mazhabi imam malik radiallahu anhu ba biñ fi mujj borom téere bi mi ngi doon jàngal yi nga xam ne dañ koo sopp ci julli tey nag borom téere bi mi ngi bëgg a jàngal yi nga xam ne dañ koo sib ci julli boo ma toppee rek borom téere bi tey dañ ko leeral mu commencé fi mu wax naan al iltifaatu fi salaati ba bunt ba jeex mu ne wa yukrahu sibnen al iltifaatu gestu fi salaati ci biir julli di julli di gestu dañ koo sib bu ñu waxee gestu gi nag li ñu ci jublu mooy bopp bi tourne nii waaye nag bu dee jëmm ji moo tourné moom boo nee xibla ba ginnaaw julli ga day yàqu waaye li ñu sib mooy dox gi di tourné waaye naka noonu tamit bokk na ci sib wa taxmiidul aynayni gëmm say gët di julli di gëmm dañ koo sib lu dul ne barab ba moo ko laaj mooy lu mel ni am na poussière bu bëri buy naaw nga xam ne boo xoolee amaana man lay fatta wala yu ni mel yu dul yooyu daal dañuy bëgg nit ki biy julli mu xool waaye ko na ci liñ sib mu ne wal basmalatu wax bismillahi rahmaani rahim ak wa taawudu ak wax audu billahi min asheytaani rajim mu ne dañ koo sib fil faridati ci julli farita waaye nee na way juusaani dañuy dagan ñoom ñaar nag fi nafli ci naafila mu ne wax auzu ak wax bismillahi rahmaani rahim ne dañ koo sib ci julli farata waaye bu dee naafila ne na dagan na masala boo xam ne nag dafa am wuute kon mazhabu Malik bi dañoo wax ne dañ koo sib julli waaye Malik ak boppam dafa wax ne moom dagan na Malik boppam ndax bu ñu waxee mazhabu Malik du Malik dong la dafa am ay ponk lim ko bokkat waaye Malik ak boppam moom dane bismillahi rahmaani rahim wax ko dagan na ibnu maslamata di wax ne moom dañ koo sopp wax bismillahi rahmaani rahim nee na moom dañ koo sopp bu dee ku mel ni naafi le moom dafa wax ne dafa war wax bismillahi rahmaani rahim dafa war comme lu mel ni mazhabu shafii ñoom dañuy wax ne dafa war nga xam ne képp ku ko bàyyi bismillahi rahmaani rahim ci fatiha te yaa ko tey sa julli day yàqu sa julli day yàqu kon mbir la moo ne am nay kon ñeenti wax am na ñii ne dañ koo sib ñii ne dafa war ñii ne dafa dagan ñii ne dañ koo sopp léegi nag di ciy déggee ne kon wax bisimilah rahmaani rahim moom kenn waxul ne day yàq julli kenn waxu ko waaye nag bu dee ku mel ngiru Shaafi'i ñoom mu ñuy wax ne bisimilah rahmaani wax ko dafa war kon boo ko bàyyee moom si julli day yàqu kon ndagam am na ñu tudd ne boo ko bàyyee si julli day yàqu kon andi ko mooy li gën a dal xel moo tax ñeneen boroom xam-xam tànn nañu comme ñoom. tànn neen wax ko ci suuf yëkkati alhamdulilahi rahman ah, alhamdulilahi ci kaw kon bismillahi rahmaani rahim kon nga gis ne kon ñeenti wax na ci waaye kenn waxul ne bismillahi rahmaani da yàq julli dagan naag dañ koo sibak dañ koo soppak waajib la yooyu moo ci am waaye day yàq julli moom kenn waxu ko kon bismillahi rahmaani rahim ak ay wuuteem mu ne bokk na ci yuñ si ba tey wal wuquufu ak taxaw di rijlin waaxid li taxawee benn tànk maa nit kiy julli yëkkati benn tànk bi di taxawee benn tànk bi loolu dañ koo sib ba faaw mën a déeréet mu ne illa an yatula ndare bi dafay dafa gudd xiyaamuhu taxawaay ba bi dee rakka yi moo yàgg ba taxawaay bi toqiloo tànk yi mu yëkkati benn bi ngir noppalu boobaa bu dee loolu la nee na ci te bokk na ci sib mooy lënkale say tànk maanaam nga jël sa benn tànk bi di ko lonk ci benn tànk bi loolu dañ koo sib waaye nag noonu bokk na ci yiñ sib wa jaalu dirham yi nga def dërëm aw xayrihi wala lu dul dërëm fii famille ci sa gémmiñ maanaam nga julli am loo seex moo xam ab dërëm la moo xam ab per la moo xam daal lépp loo mën a seex daal ci biir gémmiñ loolu dañ koy sib waaye wa kadalika naka noonu kullu maa yus sawwisuhu ak lépp loo xam ne dalay jax-jaxal maanaam lépp loo xam ne day tax doo concentré wu fii jay bihi moo xam ci sa poos la nekk aw kummihi wala ci sa loxo mbubu maan lépp loo xam ne da koy def ci sa poos mën naa nekk téléphone bi nga xam ne bu sonee dalay jaxase wala mu vibre wala bu mu ci mën a doon moo tax daal li gën booy booy booy julli nga taqalikook téléphone bi ndax bu sonee boo doonte doo dagg sa julli gi waaye man la fi mu la fekkoon nga concentré dana ko dagg wala mu vivre wala bu mu ci mën a doon mu wàññi ci yow fi mu la fekkoon kon lépp loo xamante dalay jax-jaxal daal moo xam ci sa poos la moo xam fu mën a nekk daal nga moytu ko yow miy julli muy aw ala zahrihi moo xam sax sa ginnaaw la nekk bu dee sa ginnaaw la nekk tamit loo xam ne danga koy bàyyi waale xel mooy bëgg a julli amaana ah, làmb ji mi sa ginnaaw nga nga bëgg a wantale ba ginnaaw nga xam ne bu nit ñi yuuxoo sax ba moytu bu yàlla dimbalul mën ngaa yuuxu waale yooyu yëpp daal lépp loo xamante ne day tax sa xel di concentré nga moytu ko waaye naka noonu wa tafakkuru ak xelaat fi umuri dunia ci mbiri àddina nga moytu nag di kàbbar rek di xelaat donte na lu jafe la ñàkk xelaat waaye nag nga ci góorgóorlu di jéem a poñe sa xel mi di ko téye ci julli gi ndax moom boo ko bàyyee rek ma da ngay julli ba pare doo xam ban saar nga jàng waaw da ngay julli ba pare da doo xam ban saar nga jàng yooyu yëpp nag li koy yóbbee nit ki mooy ñàkk ñàkk a teewlu kon xel mi na koy téye fàtte commerce bi fàtte njaboot gi dégg na allahu akbar lu dul yàlla rek màggul sa kanam lu dul yàlla da ko war a bàyyi ba ba ngay sëlmal mu nu waaye nekk noonu tamit wa kullu ma yasquluhu lépp loo xam ne da lay soxlaal anil xushuu'i walif ragal yàlla fi salaat ci biir julli lépp loo xam ne daal mën naa tax doo concentré wu ci biir gi moo xam añ bi la moo xam lu mu mën a doon tàqalikoo loola ba julli ba pare door cee mën a delluwaat waaye daal bul julli di xalaat añ moo tax bu añ teewee julli teew dañuy bëgg nga dem julli añ ba pare door dem julli ji ndax dañuy bañ la daal mbokk masantoon mbay bay ture kabaar di julli bi mu rukoonee lañ tegoon sa digg ndab la muus ma ñëw yëkkati ko bi muy siggee war a wax sami allahu liman hamida moom sib la siggee yu mel noonu nag la yu moytuloo nit ki moo tax lépp loo xam ne xel mën na cee taq ci jamono ji ngay julli tàqali ko ak moom ba pare door a dem julli ji sinon da kàbbaat di julli di xalaat loola di xamaat xalaat commerce bi di xalaat nangam di xalaat nangam ba xatta da ngay julli ba pare ñu laaj la ban saar nga jàng doo ko xam loolu nag la islam di bañ ndax julli dañoo bëgg nit ki teewlu bàyyi xel bu baax li muy def xam ne boromam la jàkkaar lool yooyu yëpp kon nit ki da ko cee war a bàyyi xel bu baax a baax kon kon naa kon ngi ñëw doy lool lool foofu la bunt bi yem li ci jub borom bi la li ci dëng ñun ñi di wax ak yéen la ñu ngi jaajëfal oustaz Saïd mi nga xam ne moom lañ jàkkaarloo ci euh, caméra bi waaye di jaajëfal mbokk yi nga xam ne ñu ngi topp ci site bi yëpp te di leen soo ñu ngeen wéy di abonné nga xam ne waxtaan bu duggee rek ngeen mën ko am direct kon mi ngi noonu lu ci leer yàlla la lu ci lëndëm gàtt xam-xam ak ñàkk fasaala in uridu illa al islaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa